الانسان اللي يفجر امامه يسال ايان يوم القيامه كون دوم ادم بيس بوب الله يوم القيامه دنا اين المفر انا فن لين داو جيم فن لا من نبتي فن لا من لاقتي نخ امنا بن آه، راوكاي تاي نك تفسير بي دنج كو ديف دنج كو غنا ياتال كوم بو كيروك با بو كيروك با ياتو ون لول واي تاي ngir ngir ngir ngir bayyi xel yenen mbokk yi ak wéru koor gi ñepp mëna barké motax xamna né dañ koy def tafsir mu yassar gën koo gàttal ba nga xam ne euh, incha allah yu bare bari yoo xam ne doon si anam biñ ko doon tafsir bi passé dañ koy wàññi ndax sëñ Abdou Khadir war naa waxtaanaat ci weeru koor gi ba Bachirou Fall war naa waxtaanaat ak yeneen i mbokk te bëgg ñoo jël weeru koor gi yëpp di ci waxtaan kon moo tax xëy na duñ ko yaatal comme ni nga xamee ne noonu lañ doon def bii passé ngeen baal ma ci àq bu baax a baax nag ngir waaye liñ si jublu rek mooy bëgg mbokk yëpp مانا مانا مانا مانا جاب تي ليغي بي رك ياتا ليغي بي دال لا نسي جوبلو اه ياتا ليغي بي لا نسي جوبلو كون بو بوبا اين المفر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر برام بي سبحانه وتعالى نه كلا لا وزر امول فن فو خامني فلاج مانا لاخاسو جي فلاج مانا داو جيم ngir muccu moy tolo kom la la kanaan don wax doomu yónente yàlla noox bako baye jene kay lam don wax baaji lam ko tonton la asima la asima min amrillahi illa man rahim bune la laa moy asim aasim tay fenn fo xamne euh fenn fo xamne dañ faa jàppandiku ba muccu fudul ila rabbika ci sa boroom sa boroom dong nga mën a dem tey yawma idin al mustaqar sa boroom kat mooy saxukaay ba mooy fa nga xam ne mooy euh, fa la ñuy termine fa la doomu aadama yépp mën a daw jëm ku bëgg am foo xam ne daal fa nga jëm dawal jëm ci sa boroom ila rabbika yawma idinil mustaqar mu ne bis boobee delluwaay ba daj dëpp ga làqatukaay ba mujjantalug mbir ya mujjantalug nit ña mujjantalug àtte ba mujjantalug yëf ya ila rabbika lépp fa lay del kon bu boba day mel na nit ñëpp rek nañ xamne dañuy daw del ci seen borom kon mu mel na doomu aadama wax na mom legi nak mu am genn wàll go xamne mi ngi nek amalul insani takunu bayna yadayhi al-qiyamah doomu aadama bi mboolem loo xam ne moom la doon jëf fii ci àdduna yàlla daf ko koy andil ci kanamam defal ko ko ab jóor maanaam mel na daf koo yore xam nga alquran karim ci suratul xaqa am na lu mu ci wax fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu ha muqra'u kitaabiya waaye wa amma man utiya kitaabahu bi shimaalihi fa yaqul yaa laytani lam uta kitaabiya boo demee ci suratul isra sama borom subhanahu wa taala ma nga naan xaw ma suratul kaafi wa wajadu ma amilu xaadiran wala yadlimu rabbuka ahadan naka noonu ma ngay wax ne maa li hada alkitaabi laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa ahsaha waaye sa bokkun ma de bi la téere bi nga xam ne du bàyyi dara lu tuuti waaye du bàyyi lu dara lu ndaw ko am lu muy laaj na bàyyi bañ noppi ku am lu muy laaj na bàyyi bañ na damaa bëgg a yeggal moo tax dégg nga kon bis la boo xam ne sama borom subhaanahu wa taala lépp la ñuy dajale maanaam ila rabbika yawma idin al mustaqar bu dee jàng bi ñuy jàng ila rabbika yawma ni nil mustaqar riwaaya yëpp fii ñoo bokk nañ koy jàngee riwaaya yëpp dañuy jàng ila rabbika yawma idin nil mustaqar parce que da ngaa waroon a jàng yawma idin waaye boo xasee am yawma idin daal di jàng tanwin bi kon doo mën a jàng al mustaqar parce que arab day bañ euh, nga am al maarifa goo xam ne ñaari Euh, maanaam ñaari ñaari maska xarfu jar dañ koo jiitu doo ko mën a jàng maanaam ngay arab saa bu amee loolu rek bu boobaa da koy def naq la naq la euh, mooy nga jël benn maska bi mu rotal ko maam nga def benn maska nun nga ca desoon nga yégal ko ci alif ga soxna Aïcha Fall ila rabbika yawma idi nil mustaqar la ñuy jàng kon doomu aadama bi mboolem jëf yi nga xam ne moom la jëf muy lu baax muy lu bon dañ koy jóor ci kanamam lu dul la nga xam ne yàlla dindil na ko ko misaal jëf ju bon yoo xam ne jëf na ko tuub ko bu boobaa yàlla daf koy dindi du bokk ci la nga xam ne moom la ñu présenté niki noonu jëf ju bon jëf ju baax yoo xam ne yàlla nanguwu ko jëf ju baax bu ko yàlla nanguwut bu boobaa amatu fa kon lañ fay jóor mooy la nga xam ne dañ koy àtte kon bu boobaa yunabbaul insaan yawma idin bima qaddama wa akhar mu ne keroog leef di xibar doomu adama mbollem jëf jo xamne mom la jitu won jëf ko wala mom la mujjon jëf ko mbollem lu mu jëf moy lu bax moy lu bon la sa ñëk ak la sa mujj lépp dañ ko koy wax yawma idin tuhaddisu yawma idin yasduru naas ashtaatan li yurawa amaalahum yawma idin tuhaddisu axbaaraha borom bi subhaanahu wa taala bis يومئذ تحدث اخبارها سوف سيداي خبار مولم ليغا خامني موم ليس ماسا ديف سي سي كاوم واي دومو ادمه يدي ديكي يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى كون ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر دوم ادم بي ليبوم لنجكوي خبار يومئذ بما قدم واخر اه يوكا ديا لي lu bax ya jàngoon alquran yow kat mas nga dem màkka yow kat mas nga def nangam yalna yàlla def lu lañ def lañuy waxal lépp nak di lu bax yalna ñu yàlla boole ci kuréel ba nga xamne يقولها أم ha كتابي إني inni أني ملاق حسابي فهو في عشة fi في جنة fi jannatin aaliya yàlla أما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما uta kitaabiya walam adri ma xisaabiya léegi bu ñu la ëndalee say jëf sambu bax bi génne la sambu bon bi kon ci gàttal lees si mën a wax bari na waaye comme ni ma ko waxee woon yunabbaul insaan yawmayzin bi ma qaddama wa axar bu boobaa balil insaanu ala nafsihi basira doomu aadama day xam maanaam njëkk li nee na doomu aadama kon xam na sax moom moom ban la doomu aadama moom xam na ban kuréel la si moom ban kuréel la ci doomu aadama xam na ko ci teel xam na ko ci teel mooy doomu aadama mën naa mën naa atte boppam soo bëggee àtte sa bopp rek xoolal yow yàlla lim la jaral soo xoolee yàlla lim la jaral rek danga mën a àtte sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci benn xadis ne boo bëggee natt sa bopp nan nga toll ci yàlla xoolal ni yàlla toll ci yow soo bëggee xam sa bopp nan nga toll ci yàlla xoolal ni yàlla toll ci yow soo xoolee ni yàlla toll ci yow li la yàlla jaral rek da nga xam yow li nga jaral yàlla am na ñoo xam ne jaral nañ yàlla loo xam ne mën ñoo yëngal arash ba mën nañoo yëngal aras mën nañoo yëngal aras waaye am na ñoo xam ne tolluñ ci yàlla noo xam ne jaral nañ yàlla depp déplacé pepp suuf wala ab sànqaleñ dégg nga kon balil insaanu ala nafsi basira bu boobaa doomu aadama bi mën naa xibaar boppam balil insaanu ala nafsi basira mooy doomu aadama bu settantalee ay cëram yëpp day xam maanaam tàyyel na ci jaamu yàlla tàyyelul ci jaamu yàlla doomu aadama xam na ab déggam lan la tàmm di déglu ba xam yow déglukatu alquran nga wala déglukatu musique nga ask yourself ba xam yow mii da ngay xool lu xaraam di ko fanaanee xool di ko seetaan wala lan la xam nga sa tànk yi lan nga ciy dox ba xam da ngay dox rek jëm fu baax wala da ngay jox jëm fu bon loolu anta basir ala nafsika sa mboolem cër yi xoolal ba xam loo ciy def anta basir ala nafsika man ngaa àtte sa bopp kon boog xoolal دفع منا يا داي وقت دوما آدم بنك إذا شئت والله رأيت نفسك بصيرا بعيوبك وذنوبك إذا لم تكن غافلا عن نفسك دفع منا يا الله داي وقت جام بنانكو ما نجي جنت سما مغنى سلا نيخي نغا خول لغي أتى سبابو ما نجي سي أي ما نجي سي باكار ما نجي سك تشاغنت ما نا أتى سبابو نين بيبل دنسا بندنه يبنى آدم تبصر الخذا yow yaa ngi gis say saltay bopp maanaam doomu aadama yow yaa ngi gis say mbalit waaye yaa ngi coow mbalitu keneen maanaam yaa ngi coow yaa ngi gis mbalit mu baree baree bari mi ngi ci sa kër yaa ngi am ay jàngoro yu baree baree bari waaye yow yaa ngi xool jàngoro yi keneen mu ne li nga war a toogee kon di jàmbat keneen mu ne kon te koo jàmbat sa ayib bi bopp te sa bopp jaaxal la te nga bañ a jaaxle ci keneen yow daal na la sa bopp gën a jaaxal na la sa gën a jaaxal fuuf walis ngay jaaxle ci keneen li nga waree nekk kon di jaaxle ci keneen mu ne na ko jaaxlee ci sa bopp na ko jaaxle kon ci sa bopp boo ko jaaxlee ci sa bopp bu boobaa dangay ngay réglé wante ak sa bopp di fuglu wante ak sa bopp loolu la balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqaa maadira mu ne doomu aadama buñ dikkee ëllëg yowmal xiyaam day xam boppam xam gu wér donte walaw alqaa maadira donte dafay dogal boppam ay ngant maanaam di indil boppam ay lay xam nga doomu aadama bu ko yàlla boppee bàyyeeg aw làmmiñam ku mel na sama rakk yu mën a xuloo yi mën a werante yi dégg nga kan laa fi gën a yëpp sax naa bàyyi noonu nga xam ne dañoo mën a wax dañuy xuloo kalaasu aminata laam gi dañuy xuloo ba yaay la moo tax ëllëg yowmal xiyaam yàlla day rocc ci suñuy làmmiñ maanaam suñu làmmiñ du nekkati cër bo xamne day fonctionner comme niñ koy fonctionner le waaye làmmiñ bi day indépendant ci say organe nek cër bo xamne mom buy wax bopam lay waxal li mu wax motax wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana allah alladhi antaqa kull shay borom bi subhanahu wa taala neena na ëllëg yowmal xiyaam dañuy wax waxloo cëri doomu aadama yi suñ wax lo ci ru doomu adama yi day melna doomu adama bi day mujj sax di jàmbat nan loxo wa lutax ngay wax yow bañ nekké ci àdduna daanoo wax di lutax kon ngay wax lutax tay kon ngay wax sama tànk yow yaa ngi wax di yow daanoo wax di ah beut yow yaa ngi wax yow daanoo wax di nop yow yaa ngi wax yow daanoo wax di ñu daal ne kenn ku nekk daal ne antaqana allah alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turjaun yàlla mi nga xamne mo moo wax lo lépp te ñom sax ñi ngi daan wax waye daano ko yek ñom ñi ngi daan wax waye daano ko yek ndax wa in min kulli shay'in illa yusabbih bihamdihi wa in min shay'in illa yusabbih bihamdihi walaakin la tafqahuna tasbihahum yàlla neena lépp lu mu bind da koy sabbal te luy sabbal moy kon luy wax kon ñom jamono bi sax ñi ngi wax mais duñu dégg si ñi wax waye bu ëllëg yowmal xiyam bu ñu def reportage ci ñun dañ koy yek naan wa yow lan motax ngay wax te yow daano wax kon Ah, borom bi subhaanahu wa taala nee na antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in kon bu boobaa ñoom dañuy wax cër yi dañuy wax kon balil insaana walaw alqaa maadira donte dafa indi ay ngant donte dafa dafa werante dégg nga daan ne defuma nangam ak nangam du tere ah, moom lay am am na ba noppi kon summa lam takun fitnatahum illa an qaalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin doomu aadama ëllëg yowmal xiyaam am na ñoo xam ne suñ ko mënee dañuy dikk naan yàlla man de musuma fen suñ ko mané dañuy dik naan yàlla man de musuma la weddi suñ ko mané dañuy dik naan yàlla man de musuma la bokalé suma lam takun fitnatahum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kan yaftarun yàlla dadi wonné dadi wonné ne xol len fenn ñi fenn ci seen bop amna ño xamné dañuy jëm lolu ji pour jema muccu da ne ah man de bokuma ci man de bokuma ci comme xale yo xamné ne dañoo def dara nga dik ba bëgg seen dik ndig da ngay gis ka nekkoon ci ka ko jiite woon sax day taxaw yëkkati loxoom ne man de bokkuma ci nekkuma ci woon fekkewuma ko woon man de defuma ko fekk yaa ko def yowmal xiyaam ñëpp dañuy bëgg a mucc ba ku ko man rek da ngay jéem a dégager ses responsabilités يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون humul يوم القيامه بني يالا ديكلي داغي غيس غاني توروخ ngay تا يالا ñu torox ña ña ngay waat di waat di giñ di giñ naan billaahi man dama doon jaamu yàlla musuma mooy yàlla dama doon julli pour jàpp ne malaaka bu ñu leen déggee dañ xam what's going on dañ leen di gëm ci seen seeni làmme wa yax si su ko defee ñu jàpp ne ñoom seen waat yi ak seen giñ yi dana leen tax a mucc yàlla mu ne alaa ala innahum humul kaadibuna dañuy fen waxuñu dëgg ay fenkat lañ dañuy wax dëgg su ko defee nag yàlla na comme que nit giñ bu boba mom borom bi subhanahu wa taala da len di won ci sen jëmmi bop li len di won ne li ñuy wax lépp du deug walaw alqa maadira kon walaw alqa maadira moy al i'tizar manam doglu ngànt pour jema xëc ci ay lal lay la tuhar walaw alqa maadira kon borom bi subhanahu wa taala wax na yawma la yanfau borom bi subhanahu wa taala neena la laa yanfau zalimina maadiratuhum laa yanfau zalimina maadiratuhum bu boba ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi seen ngant la du leen jariñ dara seen lay ya du leen jariñ dara kon kon bu boobaa mooy maazira am na am na ñoo xam ne dañuy jéem a dog ngànt walaw alqa maazira kon euh, bari na yoo xam ne day xew ëllëg yowmal xiyaam nit ñi di ko def ngir bëgg a setal seen bopp fexe ba mucc ci safara na ñu yàlla muccal ci safara te yàlla dugal ñu àjjana ak mboolem mboolem ñi nga xam ne ñooy suñuy soppe yéen ñi ñuy seetaan ci zoom bi ak ñi ñuy seetaan ci facebook bi yàlla na ñëpp dugg àjjana yàlla nañ dem bay macha allah naan kii de daan nañ xamante ci àdduna ci àjjana nag yàlla nañu safara mujj kon walaw alqaa maadira léegi nag borom bi subhaanahu wa andi beneen jàngin boo xam ne kon léegi ci suratul qiyaama ginnaaw bi ñu xamee ne anna aamaala al insaani takunu bayna yadayhi yowma alqiyaama كون لاجي برام سبحانه وتعالى عملنا دفا ديك في تعليم تلقي الوحي يونتبي صلى الله عليه وسلم دفا باخوون بيغا خامينا وحي ميغي واتي القران الكريم دي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم اك لو بري اي صحابام دون كو تروي بغغوغن بغ القران اك ياكامتي غن كو ياكامتي موكل comme ni ko bari ci xalé yi niñ koy défé nga xamné bu ñuy tari dañuy gaaw bëgg mokal mokkal gaaw jall ci lenen yoonte bi alayhi wasallam dafa tambali won di baral alquran di baral alquran motax baral danaka njangum baral njangum baral dafa haram njangum baral ci ko man tajwid dafa haram. motax baram borom euh, jawziya dafa wax né wal akhdhu bil qurani hatmun lazimun, man lam yujawwidul man lam yujawwidul qurana athimun jël jël jël alquran ci tajwid hatmun lazim lu war la képp koo xam ne day jàng alquran te tajwidu ko day am bàkkaar kon ngeen dégg ko kuy jàng alquran man koo tajwid te tajwitoo ko da ngay am bàkkaar kuy jàng alquran te am ku la ko mën a tajwital di la jàngal tajwid nga lànk bañ a tajwid da ngay am bàkkaar whoever supposed to read quran in tajwid and you refused to do tajwid you have a sin for not doing so yen ñep ngeen dégg ko mam Binta kon jàng ya alquran ci tajwid mom lañ wara def proof bi moy bi yonent bi alayhi wasallam dikke bu fekkoon ne yalla dana bayyi kenn mu jàng alquran ci ñàkk tajwid kon way yonent bi mo ci gëna yey ndax yonent bi ci mom la yalla di wàcce alquran benen bi moy mom bu ko tajwitee bu ko tajwitee ak bu ko tajwitut xol ba ma ngay tewlu xamna na li alquran ji di wax dara du ko recc ba noppi arab la nar la dara man na mën na def tajwid bu gaaw way yalla dana ko ci teel nadak bul gaawantu alquran bu ko baral take it easy jangal dank ndax kat ñun liñu amé moy ñun ñi nga xamné ñoo la warlul wàccel la alquran ba mu complété ñun ñoo la koy dajalel te ñoo la koy wattul yow lila war moy jang ko jox koy akam tajwital xëccal baat yi moo tax sayidatuna aïcha daan wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana qiraatuhu maddan yonente bi li ëppoon ci am njàng madd la madd madd mooy booy jàng nga xëcc maddun tabi'i xarakataani ñaari xëcc wala nga def ko laazim arbaa xarakaat wala sitta wala nga def ko aarid li sukun yu mel noonu sittu xarakaat ba itnayni ñaar ba juróom benn muy yàgg loo war a xëcc nga xëcc ko laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla di ko jàngal ne ko bu wax yu dikkee ba nga koy jàng bul gaawantu bàyyil gaawantu bi bàyyil njëkkalanteeg malaaka mi bàyyi ko ba mu dal nga jàng ko ni la ko jibril jàngalee bul gaawantu ci am njàng su ko defee man yàlla maa la koy dajaleel ci sa sa sa dënn lay tax maanaa yi gën a mën a leer nag mooy nga teylu ci njàng mi kantaan nag nga mokkal ko loolu yàlla man la war beneen bi laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bihi loolu yontu bi sanaasam yàlla tere na ko gaawant bi ndax ñàkk gaawant bi mooy tax tafsir gën a mën a leer mooy tax tafsir gën a mën a leer ndax dafa am baat yoo xam ne soo ko baralee rek soppi maanaa ba soppi maanaa ba sànq maa ngi teel ab xale mu ne ah, kallaa sawfa taalamuuna waaye ni mu doon baralee dane kallaa sawfa taalamuuna kallaa sawfa taalamuuna xam nga bu nee safa rek daal di dagg waaw gi te diggante siin ak faa dañoo jege siin ak faa bu ñu jege boo baralee rek ñàkk faa gi boo bara baralee rek dangay ngay ñàkk faa dégg nga boo baralee rek da ñàkk faa gi ndax dañoo dañoo tolloo dañoo dend maxraj kon laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bihi bul gaawantu ci njàngum alquran mooy tax nga mën a dégg maanaay mooy tax nga mën a tafsir mooy tax nga mën a def leneen ak leneen wala taajal bil qurani min qabli an yuqda ilayka waxyu suratu taa borom bi subhaanahu wa taala nee na wala taajal bil qurani bul gaawantu ci al quran wala taajal bil qurani min qabli an yuqda ilayka waxyu njëkk njëkk délivration bi nga xam ne moom lañ koy sotti ci sa dënn di noppi bul gaawantu take it easy misaal da ngay jàngal kenn yow bala ngay noppi mu njëkkante wax bët yaa ngi ca kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan xaw def lu ni mel di gaawantu yàlla ne ko wala taajal bil quran wala taajal bil quran wala taajal bil quran do not rush yourself in quran take it easy be patient have patience with Quran. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. Before Jibril, Jibril alayhi salam, give you completely the verses. Bala al did not bring a gaggawan to def Lord. Min qabli an yuqda ilayka wahyu. Okay, take it easy. Bala bul njëkkalanteeg liñ lay jox. Teyal bul gaawantu. Bul gaawantu mooy mooy exemple booy jàng bul wax laa uqsimu bi yawmi alqiyama wala uqsimu bi nafsi lawaama ayaxsibu linsanu alla najmaa isaama déedéet laa uqsimu bi gën a gaaw laa uqsimu bi yawmi alqiyama wala uqsimu bi nafsi lawaama ayaxsibu linsanu alla najmaa isaama boobu baax na parce que wa yuqra'u alquranu bi taxqiqi ma xadrin wa tadwirin wa kullun muttaba ma xusni sawtin bi loxoon alarabi murattilan mujawidan bil arabi manna na kon motax borom bi subhanahu wa taala ne ko wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu te nak ginaaw bi nga xamé ne yaang jang al qur'an di tajwid di tajwid mais del ñaan yàlla mu mu barkel xam-xam bi te doli la xam-xam del wax ne rabbi zidni ilman gis nga yàlla dafa lëkkale jàng al qur'an ci tajwid ak di ñaan yàlla nan ko rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman ku nek kuy jàng ku nek ولا غاي جانغالي وارا غادي كو بولي سي ساي نيان ربي زدني علما ربي زدني علما داخ جامانو بو نيك دا غاي غيس بوروم خام خام بو ماغا ماغا ماك بو خامني داي تاخاو دي واراتي نان ربي زدني علما ولا من ربي اشرح لي صدري ولا مونيكو مو تاخاو دادي اوبي اوبي لو خامني داي خامني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا pour dégager ay responsabilité wacc bopam xamal na yalla rek xam te yalla neena wa ma utitum min al ilmi illa qalila kon laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi inna alayna jamaahu wa qur'aana borom bi subhaanahu wa taala ne fa ida qara'naahu fattabi qur'aana qur'aana ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo gis ne alqur'aan mi ngi jóge ci baatub loo xam ne dafa jàngu ñoom dañ koy firee qur'aana bii ni am na riwaay yoo xam dañuy jàng fa ida qara'naahu fattabi qur'aana ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo gis ne alqur'aan maanaam ñooñu toujours bu ñuy jàng alquran ñoom taba ñoom quran la ñuy jàng quran quran wal qurana wal qurana farraqnaahu ñoom duñ jàng quran ñoom dañuy dindi hamza gi parce que ñoom ñu ngi jógee ci baatub qarana ci la ñuy jëlee baatub quran moo tax ñoom alquran la ñuy wax moo tax mag nga daan nañ ko wax jàng quran quran dégg fa ida qaranaahu buñ ko jàngee fattabi qur'aana toppal aw njànginam summa inna alayna bayaana yàlla daa dem ci xam-xamu tafsir daan ne nag ginnaaw ñu la ko jàngalee nga góor góorgóorlu def la la ca war kanta nag leeral ko ba nga dégg ko maanaay loolu ñun la war ñun ñoo lay may dënn bu leer boo mën a déggee alquran moo tax firi alquran bu si gën a dëppoog sunna rek moo la gën waaye bu la gën a wan ginnaaw sunna moo la gën a bon moo la gën a bon kon jàng firi alquran faaw day dëppoo ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax li ñuy def ni ñun duñu ay mufassir parce que kuy képp kuy firi alquran moo tax dangaa war a dégg sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dangaa war a dégg da dangaa war a mokkal alquran dangaa war a am xam-xam ci al mushabahat bil quran فك خم خم lañ ko علم البيان علم التفسير علم المعاني علم الكلام يو yooyu yëpp danga koo دورا مانا ام فيتو am fitu firi يوي خمو yooyu xamuñu si benn moo tax li ñuy def nii dañuy firi li nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax ñu tiim ko di firi kon borom bi subhanahu wa taala ne ko bul gaawante summa inna alayna bayaana kalla ay yéen doomu aadama muhammad sallallahu alayhi wa sallam kalla da ngeen a gaaw da ngeen a da ngeen a bëgg lante da ngeen rush doomu aadama يا الله واخنا كو بتاي القران الكريم دينغا خلق الانسان عجولا دينغا دوم ادم تي بوبام دا فا نيك كو خامني آه، العاجله وتذرون الاخره مانام آه، بارينا فو خامني القران داف كوي داف كوي داف كوي واخ ثم ان علينا بيانا غيناو بينكو جانغي با موكال كو نين ньоلا كوي ليرالال باغا خام اي معنام yéen da ngeen a yàkkamti yàkkamti googu ngeen yàkkamti nag bay baral saw làmmiñ na dakk ndax mujjoon na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay saxaabaam di ko si roy ñu baree bari ci saxaaba yi di ko ci roy kon loolu yi la ko yonent bi salla la ko alquraanu karim tere kon loolu bi mu amee kallaa bal tuhibbuna al aajilata wa tadharuna al axira mooy yéen doomu aadama yi da yàkkamti lépp lañ leen jox mais da ngeen a yàkkamti ci yowmal xiyaam gi nga xam ne dangeen a toog di ko xaar mu mel ni ci yéen dafa yàgg ba sax mënatu leen ko gëm yéen daal comme que yéen a ngi toog ñu naan aadama léegi millions yi at la ay millions millions yi at la te boobaak léegi yéen a ngi dund yéen a ngi faatu gisagu leen benn màndarga bu teew tax na ngeen jàpp ne yowmal xiyaam moom du am kallaa bal tuhibbuuna al aajila dangeen yàkkamti kala bal tuhibbuna al ajilata da ngeen yakam yàkkamti ba ci aduna xewal yi fi nek yep da ngeen se beug jot jot ci alal ji jot ci lépp tuhibbuna al mal hubban jamma bëggu len fe bàyyi dara da yakam ti yakam ti ba du ngeen jël sen temps pour def men mbir ba mu nek lo xamne ne ba day rafet te mat te nek gën ga mati anam da yakam te yakam ti ba alquran ji du ngeen ko setlu di setantal da da yakam te yakam ti ba ku si yor jukib alquran do ko setlu da ngay jang alquran bis bu set di wacce kamil waye ben aya man nga wacce fukki Kamil, waye fukki kamil yoy amu ci ben aya bo xamne taxaw nga ben bis da di settantal lan la aya bobu di tek te borom bi subhanahu wa taala dafa ngagne ñi nga xamne dañuy jang alquran te duñ ko settantal duñ ko settantal am ala qulubin aqfaluha di jang alquran te duñ ca gis dara loolu mooy xol boo xam ne dañ koo tëj jëngu ko dañ koo tëj jëngu ko nga xam ne ak leer du ca tàbbi alquran boo koy jàng afala yatadabbaruna alqurana am ala qulubin aqfaluha boo jàng alquran da ngaa war di settantal maana yi di settantal baat yi di settantal baat yi moo tax dégg nga sëñ Tuubaa wax na ko ci masaalikul jinaan bari wax na koo xam ne day jàng alquran baqara ba minal jinnati wan naas du sa jëlee lu dul ab coona daan ne bari wax na koo xam ne daan ne benn aaya boo xam ne nit ki jàngal na ko te set jàng na ko te settantal ko moo gën ci moom mu dëkkee di xatmu alquran benn aaya boo xam ne nit ki jàng na ko jàng na ko settantal ko moo gën baqara ba minal jinnati wan naas te da ngay jàng rek bismillah alhamdulilah yooyu noonu comme ñoom Fallou Sarr sama waay la dama koy tooñ rek kon kallaa bal tuhibbuna al aajila wa tadharuna al axira aha ngeen fàtte àllaaxira nag lan moo tax ngeen di fàtte àllaaxira bu leen fàtte àllaaxira bu leen ko bàyyi àllaaxira mi ngi dikk day dikk te yii ñuy wax ni yépp fa lay xewee te laa ma far faaw day am faaw day am seen itte yépp ngeen jël ko def ko ci àdduna yàkkamti lool ngeen di fo yittewoo rek mbiri àdduna seen xol ngeen jël ko wékk ko ci àdduna daa di wan ginnaaw allaaxira daa di wan ginnaaw allaaxira loolu mooy kallaa bal tuhibbuna al aajila wa tadharuna al aaxira ñu dem ci beneen xaaj boo xam ne day tegtale ne borom bi subhanahu wa taala ëllëg al xiyaam dees na ko gis dees na ko gis gis yi nag bokkuñu am na ñoo xam ne dañ koy gis gis gi nga xam ne moom la ko ñëpp war a gis waaye am na ñoo xam dañ koy gis gisug bànneex gis goo xam ne moo dàq ca ñoom dugg àjjana maanaam bu fekkoon ne dañoo njëkkoon a gis àjj eh, yàlla te gisaguñ àjjana kon dañ naan yàlla bëggatuñ àjjana nañ yem nañ yem ci xool jëmmam ja rek waaye yàlla da leen di bàyyi bañ am àjjana ba noppi mu doog leen a wan jëmmam ja kon wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira mu ne ëllëg yowmal xiyaam dana am xar kanam yoo xam ne dañoo belli belli mooy dañuy dañuy dañuy kontaan xar kanam yoo xam ne dañoo kontaan dañuy belli wujuhun yawma idin naadira lu tax ñu belli lu tax ñu kontaan parce que dañuy xool yàlla ila rabbiha naadira xarkanam yooyu ñoom dañoo kontaan lool dañoo kontaan lool ah parce que dañoo gis yàlla te yàlla moo gën a rafet lépp moo gën a bëgg lu lépp maanaam misaal ndaysaan ah, sëñ Fallou mi nga xam ne day door a jël soxna bis bu demee Sénégal ba jàkkaarloog soxna si ku nekk ci ñoom ñaar da am mbégte ci sa ci sa da am mbégte ci sa moroom maanaam da nga am mbégte goo xam ne maanaam yaa ngi koy yaa ngi koy yëgee ci sa moroom ba dana am loo xam ne day feeñ ci sa kanam ngir toog bu yàgg bi te gisante leen communication yi yàggante gi toujours rek ngeen di soukhat seenu tiofel ak seenu mbëggante bis bu ngeen njëkkee gisante ci ay at ngeen di xaarante ku nekk nam ma sa morom wax deug yalla da nga contane kon ana kon jam bi nga xamne dafa rappel léppam ci bëgg yalla xemim aljana ba ëlëk yowmal khiyam yalla ne ko ki ki la taxone di sonno ki la digone ne borom bi mom lepp nga gëm ma top ma day contane te kee moom àdduna dong la dafa dafa beug rek ngir ne manam beug na ko kii nag day boromam bi mu gis subhanahu wa taala moo borom bi ne ila rabbiha wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira nadira ila rabbiha nadira wa amna safan safaan bo deme ci si jeexanta abasa sama borom subhanahu wa taala mang fay wax ay xarkanam lu yu doy war wujuhun yawmaidin alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara baa di métti yooyu nga xam ne seeni kanam day mel na dañ koo suuloon ci suuf nawet ba nawet ba dellu sa daal leen di génne ni ñuy ñàngee ni ñuy ñaawee noonu la ñuy mel waaye ñii moom seen kanam day leer parce que dañoo gis yàlla nag dañoo gis yàlla waaw gis yàlla yontu bi sallallahu alayhi jàngale na ci xadisul buxaari rahimahullah mu ne innakum sa tarawna rabbakum da ngeen gis seen borom mu leer ñi am na foo xam ne nee na comme ni ngeen di gisee maanaam euh, Aïcha moo ko laaj yonent bi sallallahu ndax danañ gis yàlla ëllëg mu daan ne leen waaw ndax da ngeen di loru ci gis gi ngeen di gis jant bi wala gis gi ngeen di gis weer wi ndax dangeen ci loru ndax da ngeen buuxante pour gis weer wi bu weer bi génnee ñu ne déedéet ku nekk mën ngaa toog sa kër wala nga toog si ëtt bi gis weer wi amul buuxante amul xat-xat la mu ne noonu yi ngeen di gisee seen borom noonu ngeen di gisee yàlla mu leer naa ñi loolu sax na ci su naas yonante bi salaa sallam kon yéen doomu aadama yi wa tadaruuna al axira da ngeen yàkkamti daa di soxla woo àdduna waaye fàtte allaaxira wujuhun yawma idin naadira bis la nag boo xam ne ëllëg yowmal xiyaam gaa yu baax yoo yiite yàlla nañ ci bokk ñun ñépp yàlla nañ bokk ci wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha nazira ak imam Mouhamed Ndiaye mi si Facebook bi mi ngi leen di euh, ngi seetaan ak yéen imam Mouhamed Ndiaye si kim <laughs> ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idin baasira wa wujuhun yawma idin baasira ak tamit xar kanam yoo xam ne bis boobu dañuy kontaan bis boobu dañuy ah, dañuy kontaan am na ay xeeti xar kanam yu baree baree baree bare ndeysaan mhm. Mhm. Ah, loo xam ne naa ko dolli ci tafsir boobu xam nga borom bi subhaanahu wa taala ah, waxoon na ci ah, lilladina ahsanu xusna wa ziyaada maanaam ñi nga xam ne ëllëg dañuy dugg àjjana dañuy dugg àjjana am nañ ndolleen ndolleen loo lii nga xam ne moom la ñuy am nag borom bi subhaanahu wa nee na mooy gis borom bi subhaanahu wa taala yàlla bum ñu ump yàlla nañ bokk ca ña nga xam ne ëllëg dañuy taxaw jàkkaarloog yàlla di ko xool ba mu wóor le leen ne kii mooy seen borom yonent bi sallallahu alayhi nee na da ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer wi da ngeen gis seen borom comme ni nga xamee ne noon ngeen di gisee weer wi mhm. baal leen ma rek hmm اها اها kon wujuhun yawmaidin naadira ila rabbiha naadira wa wujuhun yawmaidin baasira am na am na foofu tamit xar kanam yoo xam ne ñoom ñooy safaanoog naadira muy xar kanam yoo xam ne ñoom dañuy jàq dañuy jàq baasira ay kaalixa dañuy ñëgg dañuy jàpp ne ñoom dañuy dugg safara parce que kontaanuñ li ñu gis prouve la boo xam ne ñoom dañuy yëg ne ñoom dañuy maanaam ay haalika wala kaalixa nga xam ne ñoom dañuy tiit jàq su bis boobaa wujuhun yawma idin baasira tadunnu an yufaala biha faaxira parce que ñoom dañuy jàpp ne yàlla da leen di mbugal dañuy tiit dañuy jàq dañuy tiit dañuy jàq su bis boobaa yàlla nañ si yàlla musal ëllëg yowmal xiyaam am na ñoo xam ne mbégte la ñuy waale di ko xoolee yàlla waaye am na ñoo xam ne re ak tiit ak mettit moom la ñuy waale di ko xoolee yàlla kon ñu dem ci mbiri dee kallaa ida balagati taraaqi laay yu mat a bàyyi xel la lay la yoo xam ne mën na di bàyyi xel di tari di settantal كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق لأن تي جانغي دين دي فوف سكتة واي لو أب تي جانغي لو ملنا حفص أجينا رواي بري دين دي فوف سكتة لن موي سكتة بي وقيل من راق سكتة موي دنجي نوبي تدو نوي بو نوي وقف لا بو فيكي نوي أمنا فرق نكتل سكتة واي وقف la دوناي وقيل من راق بارسكا امام حفص اك نينن نيوم دانيو غيس ني بو gis ساكتا بو بوبا فاو bu boobaa faaw nga daal di def li nga xamne moy idgham bi ghayri ghunna te bo defee idgham bi ghayri ghunna bu boba maana bi day soppi ko waqila marraq da nga mën jàng te bo ne marraq day nek lu haramu lolu amna xéti nar yo xamne xam dañ daan wër ci mbedd mi di am loo xam ne dañ koy yor di ko jaay ci kër yi ñooñu la ñuy kon mana bi dikk nga wax man raq nga xam ne dafa mel na bi mooy laaj di laaj di laaj ab question waqiila man raq moo tax sakkta mënta ñàkk moo tax képp ku ko jàng te bàyyi sakkta maanaam ab yàq la ci alquran yéen ñi toll ci bi soxna man raq. ba def xafs warsh warsh mom. du fi sàkk te moom da ko wutalul layam it moom parce que moom giseewul maana boobu warsh moom du def fii sàkkta sàkkta ñaar yoon la dikk ci alquran warsh nag moom du def sàkkta moom amul sàkkta sàkkta kon mooy nga noppi te bul noyyu wa qila man raaq kallaa ida balagati taraaqi borom bi subhanahu wa taala mi ngi jàngale ci waxtu ixtidaar mooy jamono boo xam ne moom la nit ki di faatu mooy saa boo xamee ne doomu aadama bi dem na ba nga xam ne ruugi mi ngi dog at taraaqi muy jot na maanaam ruugi ma ngay tàmbalee xeex xeexit nga xam ne mënatuta noyyi noyyi pelek am na lu fatt ci moom mënatuta joxe énergie bu mat waaye bu bëggee nooyi dara day dagg dara di des kallaa ida balaxati taraaqi su demee ba nga xam ne doomu aadama bi yegg na foofu aha برام سبحانه وتعالى نفسي بولا ايقاف يبري كلا اذا بلغت التراخي مو نيت كبو دمي بتول لكي وقتو دي دي احتضار دينغا فاذا نف... وجاءت وجاءت كل نفس مع وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد نيت كبو دمي بتول فوفو وقيل من راق كلا اذا بلغت التراخي مو روغي بودمي باي سيباريو اك جمجي ba nga xam ne say lor mi ngi génn ba nga xam ne sa bëli mi ngi wow ba nga xam ne toll nga foo xam ne dangay jàpp ne amul menn ndox muñ la mën a taajal lu dul ne naan nga ko ba mu jeex tàkk wa qiila man raaq mu sonn tàmbali di dóor ay tànk ay mbokkam wër ko bu boobaa qiila man raaq bu booba mbokk ya ña ngay taxaw naan waay waay ndax du ñu wut ab docteur du ñu woo ambulance bu dee fii nañ woo 911 nañ woo bàyyi sëñ diw nañ woote ci siñ sëriñ ba ca Sénégal nañ woote siñ sëriñ ba ca Sénégal nañ woo waa diw sàngam nañ woo imaam jàkk sàngam nañ woo sëriñ bam mu nañ woo nangama ak nangam kuñ man woo dara nag dara dara wooteel kudul yàlla mën mënu ci dara waaw yónnil xale kër gi yëpp ñu dem woo ay fajkat ñëpp dajaloo waqiila man raaq mënuñu ci dara mënuñu ci dara Steve Jobs dee na waqiila man raaq mënuñu ci dara Michael Jackson dee na ci suñuy jamono waqiila man raaq mënuñu ci dara Kanko Moussa nga xam ne fa alalam tolloon ba léegi waa àdduna bi yëgguñ fa dee na mënuñu ci dara ñi fi nekk nii dañuy dee wa man raaq kuñ mën di andi mënuñu ci dara waaw doomu aadamam mën naa def ay pexe ba nit bu doon faatu mën na koo jële fii léegi diggante bu gàdd gàtt déplacé ko yóbbu ko feneen waaye kenn mënu ci dara nee na foofu nag bañ naan ana ab fajkat mooy man raaq ana ku ko mën a faj entré na hôpital dugg na life support dara waqila man raq wa dhanna annahu firaq bu boba nak ñu xamne nak ki day dee ñu xamne tay ji lay tàqalikoog ñun bay ma ngay dem yaay ma ngay dem sama papa ngay faatu ma tim ko mënuma ci dara docteur yi woma ma jang luma xam mënuma ci dara ñu ne ma li moy mujjantalug dundam ndax amna lo xam ci alquran ci sa diine nga tariko mané ankay ma tàmbali di jàng ida waqatil waqi'a ba yegg ci laye ji neex ja ala sururin mawduna muttaki'in alayha mutaqabilin machine ba daal di sone ma daal di nodd munuma ci dara ta wallahi buma ko manona jox sama dundu jox koko way munuma ci dara non lañuy démé ko koo sopp day dem ku la sopp day dem ko bañ day dem ki ki la bañ day ñëpp dem wa khila man raq aha buñ démé bàyyi fi liñu am liñu am ñu bàyyi ko fi ñu jël ko ñoñé bàyyi ko fi walillahi miraasu samawati wal ardi yàlla mu jël lépp ñoñé dem ñeneen dem ba ñëpp jeex tak yow mu fi nekkon ñu xam la ngay geuver geuver génération dik fàtte la xeeb la xeeb sa démb xeeb sa aad aada su say sët bëggé jël ci yow référence ñu ne maam da tardé non lañ koy topé bam jeex tak ba yàlla dik ne limanil manil mulkul yowma lillahi alwaxidi qahhar وقيل من راق يبا يدم بين بربين وظن أنه الفراق نقمنا نكتاي تاقلك وأمنا باي ديدم يا ديدم يبا يدم أها كان دس والتفت ساق بساق نتكي بي فاتو وقيل من راق <coughs> وظن أنه الفراق wal taffati saqu bisaq wal taffati saqu bisaq wal taffati saqu bisaq Moy sa ñaari tànk dajalo dajaloo gi ñu dajaloo di fëggante mooy iltafati saaqu bi saaq seydina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam si bu metti la metti la sukarat. juróom-ñeenti fan mu feebar ko dem na ba mënta déplacé wu cib néegam mas nañ cee waxtaan the last nine day nine days of prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ila rabbika yawma idin il masaaq waltafati saaqu bi saaq tànk yi fëggante la sa nekkoon mel dañ kaa rocci dara desatu sa الى ربك يوم اذن المساق موي لما جانغون الى ربك يوم اذن المستقر في حفص اغوار شيب الى ربك يوم اذن المساق لا جانغ اها مو نه جيخنا ديبو ديكي الى ربك يوم اذن تي بيس بوبي المساق يالا كات موي وماتو كاي بينو جيم فلان وماتو جيم موي ديلو واي بي اي المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله عز وجل فيقول الله فيقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ومنها أخرجهم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نيت كي بفاتو بانيو جيل روغي با يكتيكو موني دا فاملنا بروم بي سبحانه وتعالى داي واخنان ردو عبدي الى الارض سما جامبي جيل لين كو نين ديلو وات كو تي سوف فاني منها خلقتهم تي سوف سي لالن بيندي wa fiha uiduhum ci biir suuf si laa leen di delloo wa minha uxrijuhum taaratan uxra ci biir suuf si laaleen leen di génneewaat beneen melokaan dekkil leen di leen laaj moo tax cheikh muhi masa cheikh muhiddin sàmba jàllo yàlla na ko yàlla yokk yërëm ku baax mooy wàllu yàlla boobu gaañu fan yi rek ndeysaan da ci suuf te amoon na lu ne ci àdduna ci suuf rek la bëggoon a topp lu ne amoon na ko ci àdduna nee na bu masaan sol yére bu rafet rek dafa bëgg ngay xool ko kontaan waaye dara taxul ci àdduna kon nañ teel a kóllëranteeg suuf ku teel a kóllëranteeg suuf waaye boo nekkee Amérique da ngay fàtte na sax suuf am na jëmmi suuf ah dëkk boo xam ne daanaka doo gis poussière boo toogee rek macha allah ngelaw li climat bi baax boo génnee dara laal la nga ci ciipatu ba xotti say yére soo génnee daal di makiyaasu xamoo lu dul climat bu baax te loolu lépp ànd ak loolu lépp ëllëg yowmal xiyaam maanaam ànd ak lépp soo faatoo ñu gas ba mu xóot sol la ah te xool leen rek ñun ñun suñ mbir ni mu doyee waar luñ dund li mu neex neex ndeysaan xoolal li ñu bëgg rek mooy buñ faatoo ñu yóbbu ñu suuf ñu yóbbu ñu Touba ñu yóbbu ñu Yoof ñu yóbbu ñu Tiwaawan maam ñu yóbbu ñu Sénégal suul ñu fa laa ilaha illallah yàlla nañu yàlla yërëm kon بروم بي سبحانه وتعالى داني جانغال وهو القاهر فوق عباده مانام موم كاتنم دافا دافا نوتو كاتنم دافا نوت ليب ويرسل عليكم حفظه تدي دافا مانام موم كاتنم مو ام ليب موم مانام دافا نوت داي اجي نوت داي اجي نوت نوت جو خامني نيب لا نوت نيب لا فيتا كاو با نوبي ام ньо خامني داف لين دي يوني وانك حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون نينا ديمون بو جوتي ملائكه مي ديك راينو تي دو تاردي دو اوبل مانام دو دو ياكمتي براي لا بيس بن بيس صاح دوكو دوكو دوكو مانكي مانام دو لا جوخ اكسترا دي مي دو ام بن بي دي بو مانكي تي ناك دي بو خاسي ديك منو موسى كواني با ليكات في بن بيب تيب منو موسى كواني با نانات في بن بوب نوخ mëno musa ko wane ba noy wat fi ben air bu dikkee dik na sumardu ila allah mawlahum alhaq lolu borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci suratul an'am kon de bu dikkee wa qila man raq wa dhanna annahu alfiraq waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma idhin almasaq ila rabbika yawma idhin almasaq borom bi subhanahu wa taala neena boba ci lañuy xamne lépp rek manam liñ nane lépp tay lañuy xamne lépp deug la deug deug nak kérok lañuy xamne lépp deug la fala sadaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla kon bu fekke ne ab yefer la mu nek ko xamne daanul julli daanul saraxe ba nopi weddi won yàlla féttéerlu won ginaaw ah yàlla nañ ci yàlla musal waxon nañ ko léegi كتابه بشماله كوكو مام سفرو جهنم واو سفرو جهنم با نوب نيكون كو خامني مام داف دون بانيخو رك ثم ذهب الى اهل يتمطى توجور مام داف دون بانيخو نيك تي نيك اب كاتيور بو خامني داي بانيخو ثم ذهب لي نك دوما تباي خلاج مام جامونو كورونا فيروس بي صاح من نان سي جانغ ثم ذهب الى اهل يتمطى امنا ньо خامني نين كوي دوند نان لاكو نيت دي دوندي موي يانغ سان جابوت yaa ngi toog yaa ngi ci confin kii bi euh, confinement bi ci quarantaine bi mais dara dara defoo ko dara lu am njariñ defoo ko loolu kay summa dhahaba ila ahli yatamatta yaa ngi toog ci sa njaboot di bànneexu di happy dara di sànq sa temps ci lu amul njariñ am na ñoo xam ne sax ci yéen maara day taali si confinement bi la seenum njàng yàqoo ndeysaan te dafa waroon a gën a baax am na ci lenn ci yéen ñoo xam ne yéen ñi may déglu sama rakk yi ci confinement bi ci ci la seen njàng yàqoo ndax ci la ci lañ tàyyeelee dégg nga ci lañ tàyyeelee ci la leen seen bakkan gañee te bu ngeen fàttalikoo confinement bi muy tàmbali maa ngi naan kenn ku nekk na jamono bi ci ngay xamee sa bopp when you just alone kenn ku nekk ci nga xamee sa bopp boo wéetee maanaam nit am na ñoo xam ne ndakate bi ngay nekk mbooloo di gis di gis di gis mbooloo mi ndakate euh, environnement bi ngay dund ak ambition bi ak euh, li nga xam ne mo ndakate moo leen di motiver mbooloo waaye ndakate ñoom buñ nekkee aloon rek nday ndeysaan seeni mbir yàqu ñu mel noonu nag faaw yàlla xañ leen dara benn duñu ku mel noonu du am wërsëg wala du am xam-xam parce que yàlla daf koy testé ba xam ne am na lu mérité woowut nit nit dangay sant njaay boo nekkee ci mbooloo waaye boo nekkee ci yow dong yit da ngay sant njaay maam li ma ne njaay santuma jublu njaay njaay njaay gi waaye li ma jublu mooy nit da ngay nite nekk complété nekk ki nga nekk boo nekkee ci mbooloo ak boo nekkee yow donc waaye malheureusement ñu bari seen jàng yàqu na ci confinement bi ñu bari seen jàng yàqu na te bu gënee yàgg moom dañu bàyyi dañu bàyyi jànkaar ma lool nag du lu baax moom loolu moom wax dëgg yàlla ku dal na nga na nga na nga góorgóorlu not sa bakkan xeex ak sa bakkan xam ne dara nag jombut doomu aadama dara weesoobut ay gone ngeen képp koo xam ne seetlu nga sa bopp ci loolu ab dénkaan la na nga jaaju nga jaayu nga jogaat nga ne nag bu soobee yàlla danaa ko daan danaa ko daan ndax xamoo incha allah are we gonna continue next one day twenty days thirty days hundred days you don't know kon fexeel ba gañe sa bopp bi nga nee sa bopp yow dong ak sa njaboot waye di tëdd muy neex rek ma dhahaba ila ahli yatamatta koku borom bi subhanahu wa taala neena awla awlaa laka fa awla thumma awla laka fa awla awla laka fa awla manam moy way way tiskare ñel na ke tiskare ñel na ke ci la dox ci ni muy dundee ci ni nga xamné non la redde aduna awla laka fa awla thumma awla laka fa awla koku dal tiskare ñel na awlaa laka fa awlaa maa ngi koy tëkku moo gën a yey ci sama mbugal maa ngi koy tëkku moo gën a yey ci sama mbugal maa ngi koy tëkku waaw maa ngi koy tëkku parce que yow dangaa weddi yàlla ba noppi dangaa tàyyeel ci sa bopp ba noppi yaa ngi dox di caaxaan maa ngi koy tëkku maa ngi koy tëkku kooku nag bu dee ab yéefar ki ñu tëkku nii mooy ëllëg ki nga xam ne yàlla daf koy jël dugal ko ci biir safara ba noppi naan ko ah yow kat you are an honorable guest you are an honorable guest Ah, dugal ko ci safara ba noppi naan ko dhuq test you are an arrival guest dugal ko safara ba noppi naan ko masal yow gan gu tedd nga gan gu tedd nga ko baax nga dugal ko safara ba noppi naan ko ko baax nga maanaam nit nan lañ koy tuddé tejé jeel joxuñ ko mu naan diko ko ay yar ba naan ba noppi naan ko yow ko da nga baax ko baax nga motax ko nga moy lan moy nit ki nga nga nga nga nga xasse ko ci luy nuru aw tag nit ki yang koy xasse ci luy nuru aw tag waaw am na ñoom Bachir Fall li ñuy wax almadh bi ma yashbihu dhamm wa dhamm bi ma yashbihu almadh ci seen yooyu ñuy jàng dégg nga awlaa laka fa awlaa thumma awlaa laka fa awlaa borom bi subhaanahu wa taala nee na ayaxsabul insaanu an yutraka suda suda ayaxsabul insaanu an yutraka suda wala ayaxsibul insaanu ayaxsibul insaanu an yutraka suda ndax doomu aadama moom dafa jàpp ne dañ koo bind neenal ko maanaam dañ koo bind neenal ko amuñu ci moom ëllëg yow mal amuñu ci moom dara maanaam nekkul di ko topp di ko contrôler li muy def lépp di ko bind ba noppi ëllëg yowmal xiyaam ñu war koo dekkil taxawal ko àtte ko laaj ko déedéet afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjauna ndax da ngeen a jàpp ne dañ leen a bind ci ab ngeen nekk ñoo xam ne rek maanaam du ngeen dara te ëllëg yowmal xiyaam kenn du leen dekkil indil leen ci ñun ankay yàlla day dekkil ñépp indi leen ci jëmmam atte leen ayaxsabul insaanu an yutraka sudan ay safal ndax dangaa jàpp ne yàlla daf laa bind te du la dekkil faatuloo ndax da ah <laughs> ndeysaan كوك دي ديغول ديغول ديغول ديغول ديغول براعة الاستهلال سيغ ba sëñ Bachirou Fall booy def tafsir nga jàngal len bara بشير فال بشير فال بشير فال اها بشير فال nga jàngal xale lan moy براعة الاستهلال اي Fall loolu baraatul istihlaal la mooy technique boo xam ne koy utiliser boy warate manam leg leg wax lu reetaan lu ngir nit ñi déglu la wala wax lu metti wala woo seeni tur ngir su ma wooyee sa tur nga gën a pay lool loolu lañ ci jublu waaye yow kay ku baax nga yow kay ca bokk ndeysaan dégg nga boobu beneen baraatul istihlaal la aha loolu technique la boo xam ne kon ayaxsabu l insaanu an yutraka suda ndax doomu aadama dafa jàpp ne dañ koo bind te ëllëg duñ ko régler dañ koo bind rek neenal ko comme xar yi xar yi sax neenaluñ leen ndax Serigne Touba nee na ci tasawudu sixaar ëllëg yowmal xiyaam ñaari xar bu ñu mbëkkantee ngir ne xar mi dafa am béjjën ëpp ko doole xar yooyu sax ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana indi xar yooyu taxawal leen daa di jël xar ma amutooni béjjën saxal koy béjjëni kële mu fay ba noppi ñu doog leen a bàyyi ñu dem kon yàlla nee na lu dara dara neenu ci yàlla a yaxsibul insaanu an yutraka suda maam jaar kebe yàlla nee na bindu la ngir ne ëllëg du la àtte daf bindu la neenal la maanaam ëllëg da dekkil taxawal la a yaxsibul insaanu an yutraka suda bul jàpp ne yàlla daf laa bind ba noppi nee na la du la àtte ëllëg yowmal xiyaam nee na da lay àtte ëllëg yowmal xiyaam brother axi maxtaar xaw ma kuy kooku waaye dégg nga aha a yaxsibul insaanu an yutraka suda yàlla nag mi ngi wax loo xam ne manees na see wax lu bari waaye comme li ma wax rek ngeen baal ma dañ koy gàttal dañ koy taysiir kon ah, alam yakun nutfatan min maniyyin tumna alam yakun nutfatan min maniyyin yumna bu dee bu dee wax taqdir yumna gi ci maniy bu dee warsh dañoo taqdir maniy gi ci nutfa alam yakun nutfatan min maniyyin tumna maanaam jëmmi liy toq bu dee warsh moom dane nutfa moo mu ne ko tumne parce que nutfa mu annas la dañ ko moo tax fi'l mudaari bi day nekk mu annas moo tax mu ne ko min maniyin tum ne kee ne ko min maniyin yum ne wa ala kulli xaalin doomu aadama nee na yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na alam yakku nutfatan ndax doomu aadama nekkutoon nutfa muy muy benn benn lumb deret boo xam ne dafa toqee woon ci sperme muy góor ak jigéen boo xam ne dañoo sëy moo xam bu dagan la wala bu daganut kenn ku nekk am ca bànneex dégg nga dara génnee ci ku góor ki dugg ci ku jigéen ki muy lu ñàkk solo nga xam ne ba loolu amee ba noppi bànneex dong lañ ca yëg noppi ca nag noppi ca yàlla nag ci matam diggante bu gàtt ku góor ko moom noppi na ca moom ku jigéen ka tàmbalee miir tàmbalee waccu biir ba tàmbalee metti muy tàmbalee dem hôpital di tàmbalee naqari deret di évaluer di évaluer di évaluer wàccu yu ñàkk solo yooyu jigéen ji ñaaw lool ñaaw lool bu tollee foofu ñaaw lool soppi ko ndax tël te defaru am na ñoo xam ne ngeen baal ma sangu sax ndeysaan duñ ko tal ndax seen wér gi yaram àttu ko amuñu benn benn bëgg-bëgg ci àdduna sangu sax duñ ko duñ ko tal parce que dañoo maanaam desire la ñuy amut lañ dul amati loo sa xel di teey dégg nga sa yaay jaar ak foofu yow ay choona ñak solo nga xamne xolal yàlla fi mi jaar ak soxna yi rek fi mi jaar ak suñ soxna yi soxna yëpp jaar fa fu ñak solo fofu legi nak ëll ko ki mu indi nga xamne fofu la jaar ak yaayam moy taxaw di ponkal ponkalu di dëkku yàlla di bàkku yàlla te yàlla mom fe la ko jaarale te fi la koy indi ayaxsibul insaanu an yutraka sudan alam yakun nutfatan min man yantumna neena ci jotaayu bànneex boobu rek ci laa leen bindee jotaayu bànneex demal ci suuratul muminuun nga jàng laaya demal ci xadiisu yonante bi sallallahu alayhi wa bu siiw boobi nga xam ma ngay wax ne inna ahadakum yajmau xalqahu fi batni ummihi fi batni ummi arbaina yawman yawman lu bari ci yéen jàng nañ ko macha allah ba xadis ba jeex doomu aadama fi muy sosoo bu amee arbaina yawman bu amee bu amee thamanina yawman bu amee miya wa arbaa wa ashruna yawman alam yakun nutfatan min manin tumne thumma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawee ginnaaw bi borom bi subhanahu wa taala nee na ginnaaw bi mu def ko mu nekk ginnaaw bi mu nekkee lumbub deret ginnaaw bi mu def ko mu nekk suuxub yàpp suuxub yàpp suuxub yàpp nag la koy def def sa yax ginnaaw bi nag mu def ko mu fashion ko nag mu fashion ko yàlla le le grand le plus grand acteur nga xam moy mooy daqa acte ki gëna mëna dessin ki gëna mëna xam lan moy art artiste bu mag bi nee ma dik nak daal dikoy fashion nak fashion li ñaan fashion defar ko ba ba mu ba mu ba mu nuru ben création bu rafet bu ñuy wax nit dàq ci lepp mëna taxaw ak ñaari tank te du daanu ba nopp jox ko équilibre yàlla mënoon na laa bind mais amoo amoo équilibre maanaam boo taxawee da ngay daanu mais daf laa jox ay sidit yoo xam ne soo taxawee dang naan jodd doo daanu ngelaw li bu la doon ëf sax doo daanu allahu akbar mu jël yeneen yi mbindeef jaxal leen ñeenti tànk kenn mënu see yëkkati ñaar te du daanu borom bi subhaanahu wa taala fa xalaqa fa sawaa fashion fashion ثم كان علقة فخلق fasa wa فسوى fasa wa yàlla fasa wa bind daa di koy rafetal waaye nag bi mu la defee ngay nit ba noppi nag ndeysaan juumut boo dee nit ku ñuul dalay jox bakkan bi nga yellool bu sa bakkan guddoon rek nga raf doo rafet boo dee nit ku ñuul mu jox la karaw gu gàtt bu sa karaw guddee sax doo rafet jox la lépp loo xam ne day takk ci sa yaram day am am méngoo moo tax ñi nga xam ne dañuy artistes yi dessin buñ bu ñuy tàmbalee dessin bu dee nit ku ñuul daanaka bakkan ba la ñuy tàmbalee bakkan bi moo lay njëkk a wax nit ku ñuul la perso personnage yu nit ki ba noppi def la kenn ku nekk nga mel na nga mel ba noppi rafet ci sa bopp sa yaay bëgg la nga rafet ci moom sa sa nga gënal ko yi ñépp nag sa papa bëgg la nga rafet ci mom nga gënal ko doomu ñepp ba kenn ku nekk dañuy yëg ci sa doom ne mom spécial la mom mais sa soxna bëgg la nga dàqal ko góor ñëpp te man naa am da ngaa ñaaw mais yow nga bëgg sa soxna mu dàqal la jigéen ñëpp te man naa am taaruwut mais yàlla ci boppam moo bindee noonu ba kenn ku nekk rek def na ci yow melokaan bu rafet allahu akbar فجعل منه الزوجين الذكر والانثى نينا جوتاي بانيخ بوبي مو генي سا غور اك جيجين فجعل منه بيندي سي دوم ادم الزوجين الذكر والانثى غور اك جيجين امنا لايا بروم بي سبحانه وتعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم الخدير يالا نين موني بن سي نياك كاتان اي لير غيناو بي مو ديف سي نون اي لير ني اي بونكال غيناو بي نيكوتو اي بونكال ني اي ماغات مو ني يوري بانت مو جيغي بوي ген سي اسكالاي ديكو واتي بو دوم جابول سي سا لوخو دوما واتي aha borom bi subhanahu wa taala nee na yahabu liman yashaau inatha ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله أكبر نينا كوكو نيخ may ko jigéen doom yu jigéen dong ku ko neex mu may ko doom yu góor dong ku neex mu may ko doom yu góor ak doom yu jigéen ku neex mu bañ koo may tus ku ko neexit mu may ko benn barkeel ko ku ko neexit mu may ko benn bonal ko ku ko neexit mu may ko mbooloo baaxal leen ku ko neexit mu may ko mbooloo bonal leen ku ko neexit mu may ko la ko neex def ko na ko neex subhanahu wa taala yàlla dafa yooyoo ñu yàllal ko فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر يلا نينا ndax moom nekkul ne am na kàttanuk ala an yuxyiya al mawta mu dekkilaat way faatu yi yàlla dafa laaj de daf ñoo laaj de ba xam gëm nañ li muy laaj laaj bi du laaju bëgg tontu de daf ñuy fàttali suñu bopp alaysa dalika bi qaadirin ala an yuxya al mawta doomu aadama waay waay xalaatal ndax nekkul yàlla mi nga xam ne moo la sosoon melal la rafetal la fashion la bind la nga ñëw amoo benn kàttan ginnaaw bi mu jox la kàttan def la ngay dara ci ba nga xamee ne nekkoo woon dara yéen ñi ñëpp seeni doom ñëwaguñ te ëllëg mu war leen a joxi doom doom yooyee mu leen di jox ak ñun ñi ak ñeneen ak ñeneen yàlla mi nga xam ne mooy amal loolee xanaa kay tëwu ko mu am kàttanu كده بنوب جنا وبملا عمله مده كلا الله أو ليس بدء القلق بأهون من من إعادته نخن كل كي خنا صص تلو دول دارا ما ورا نجنا جفه لنك دارا بنوب جنا دفرات كو ما تخبرون بسبحانه وتعالى نه وتناو اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى موتاخ سوخ موتاخ ني سوب كيب كو خامني داي جان القران با ييغ في كوكو ديغ غاني بلا بلا موي انكاي يس بلا موي انكاي يالا من نكو كاي وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده يالا موي كيغا خامني مو سوسون جامي تي اب تامبالي ثم يعيده تي غيناو بي بو نيو دي با نوبي مو ني ديلو wa huwa ahwanu alayhi yàlla nee na loolu moo gën a yomb ci moom yàlla nañu yàlla may dégg ak topp saar la bu bari ay jàngat bu diis lool boo xam ne <clears throat> mënoon nañ see wax ren ba déwén bu ñu bañutoon guddal ak timit comme liñ leen wax rek bëgg nañ suñu yeneen rakk yi barkeelu ci liñ man def ko àddiyee weeru koor te xam nañ ne lii ñuy wax ñooñu ko dàq ñoo ñu ko gën a xam euh, daa mel na na jël nañ temps bu bari te dog mu ngi bëgg a jot kon xam naa dañuy yemale foofu waxtaan wi yéen ñëpp yàlla na leen yàlla barkeel yàlla lépp lu muy diggee ci saar bi yàlla bu leen ci kenn ëppale lépp lu muy xuppaate wala mu ñu ci moytandikuloo yàlla nañu ko yàlla soril yàlla na jullit ñëpp dugg àjjana yàlla na jullit ñëpp dugg àjjana yàlla na jullit ñëpp dugg àjjana ci barkeb alquraanul karim ci barkeb weeru koor gi ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb lislaam ci barkeb saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb mag ñu baax ñëpp ci barkeb cheikhul xadim radiallahu anhu ngeen gën a góorgóorlu bu leen découragé confinement bi bu mu leen gañe bu mu leen gañe jaayu leen waat leen ngeen xam ne àdduna bi amu leen fi kat lu ëpp diine te diine moom amul dara loo ciy am di ko réccu nag te loo si ñàkk ëllëg danga ko réccu te ndaw ndaw ndaw li muy tekki mooy lu tuuti moo tax yàggut ndaw lu tuuti la boo amee vingt cinq ans mu jeex li ci des lépp nag nekkatul ak ndaw ndaw mooy xaleel lu tuuti lay tekki mooy kon li li si wolof bëgg a wax mooy loo xam ne ab temps bu gàtt la rek day jeex bu jeexee nag après mën naa am bis ñëw ngeen di wër ku mel na ustaas du ngeen ko mën a am mën naa am bis ñëw ngeen di wër ku mel na ustaas du ngeen ko mën a am bu neexee yàlla nag yàlla génn fi téeméer yu gën a man ustaas liggéeyam gën ko ko bëgg waaye loolu lépp ci loxo yàlla ne comme que xamoo lan la nag li nga am fonk ko te jàpp ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na war na ci bépp jullit war na ci bépp jullit war na ci bépp jullit muy dégg ndigal tey bàyyi tere war na ci bépp jullit muy dégg ndigal te bàyyi tere li feek digaluñ ko ak mooy yàlla li feek dugaluñ ko ay mooy yàlla ak mooy yàlla moo tax maa ngi leen di ñaan te awma lu dul loolu li ma leen digal surtout jigéen ñi digal leen ko ba noppi nekku leen ak man nga xam ne ma leen digal dama leen koy yéene dee leen ci sax waaye ñu bari ci yéen maa ngi jànkuwante coono bu métti dama leen di wax dara wax leen ko ci xol ñu xam ne leen di wax dëgg la ci man ñu war saa continuer am at waaye ñaari fan ñetti fan une semaine lañ cey dem mel na loolu jeex na day metti mënoo bis bu set nga jël nit ki téléphone ko koy góorgóorlu leen soññi leen seen bopp yoonu ndaw day jeex ëllëg yéenay nekk jabar yéenay nekk yaay ëllëg yéenay nekk maam ëllëg yéenay nekk professeur ëllëg yéenay dimbale yeneen génération yi mais bu ngeen waajalul seen bopp du ngeen ko xam waajal leen seen bopp te fii ngeen di waajalee seen bopp jamono bii yàlla mi nga xam ne moo dogal ma ñëw fi bokk ci waa dëkk bi sama mission di jàngale ah xëy na lii la bëgg am na lu ci bëgg te ah ku am sam xel di setantal xamne alhamdullilah alhamdulillah sha allah lu bare bari sosu na taxaw na tabax na baax na ba wallahi azim yal nañ gudd fan waye suma ma faatu woon sax su len nexé liggey bi du fay bashir Fall Fallu ñaari Fall yi Abdul Qadir jak yadma Lamine suma fi nekkutoon tay de bu liggey bi fayé yéen la neex waaye alhamdulillah قنا غور غور لين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته